du jour de ce mercredi 24 juillet 2024 VIP People la chaîne des grands événements la chaîne qui vous informe juste et ñu koy faral di defee saa su nekk di lundi au vendredi ñu jël lépp lu scandale daal di leen koy baaxe fii ci VIP people fi ñuy dooree rek moom mooy réeroo bi am diggante Waly Diouf Bodian DG Port ak ki nga xamante moom mooy biram Souleye Diop kaddu yu mu yëkkati woon ne bu ñu xaar benn ministre ci li nga xamante ne wala benn ci koo xamante ne mu ngi ci gouvernement bi ci seen mbirum làmb yooyu le mu mel ni réeroo am na ci diggante ñaari jëmm yooyu le ñu déglu ji ko ñëwaat wax ne ma bëgg ñu déglu ma bu baax a baax may wax ne gouvernement bi tey amu ci kuñ ci fekk ci làmba laa ëmb moo tax ma ñëw ñëw naa fi en tant que nit ku bëgg làmb mais tamit dam fi ñëw en tant que de de du am ku ñuy fekk ñu koy tuddee ngénte ma wax ko mu leer du am ku ñuy tuddee match football xam nga ñun dañuy jàppale le sport en général et làmb ji c'est le sport roi au Sénégal Moi li ñu li ci ñun euh, donc l'un dans l'autre ñun dañuy jàppale làmb et ça permet. fel autorité yi bëgguñu làmb ak yu mel ni ki noonu daa mel ni lii daf koy weddi non question de weddi sax mooy euh, xam nga sport amul bien autorité bu ko bañ. communication la rek mais kenn du la wax ne la tel sport. Euh, autorité waruñ ko jappalé déedéet c'est c'est tout c'est tout l'inverse man lima comprendre ci sport yi nek ci Sénégal le sport est aussi un levier de bien-être et de développement voilà donc euh, c'est tout à fait du weddi dara mais teg fi li fi am la naturellement les autorités doivent soutenir le sport ça c'est naturel mu ngi noonu euh, réeroo am na man lima ci yaaxal waaye yéen Waly Diouf Bodiang yi teel naa changé di Waly Diouf Bodiang bi ñu koy tabb ni mu meloon ak nii ku ne xaalis neexul da nga yorul man xam naa ki newoon l'argent ne fait pas le bonheur bis bu ñu ko gisee senegal gii dóor ko ba muy bëgg a dee gas suul ko la ñuy def te deewagul ki waxoon prover boobu naan l'argent ne fait pas le bonheur c'est l'argent qui fait le bonheur surtout en nos jours Quand tu as l'argent, tu respecté. Quand tu as l'argent, tu es honoré. Quand tu as l'argent, même si tu mens, on te que tu dis la vérité. Quand tu as l'argent, même si tu fais des bêtises, on te dit que c'est bon. Donc, ki waxoon l'argent ne fait pas le bonheur. buñ la gisee rey la man mi dinaa bokk si ñi lay rey pauvreté baaxul Waly Diouf Bodiang mi ko gis xam ne soppeeku na euh, ma ñëw ci vidéo bi diggante ñoom ñaar nag réeroo dafa am ndax kee lu mu wax ak kee bokkut birum sulay job, yow li nga wax ni ken santu lako won nyom mu ngi ni ñom ñom ñom ñom Sabel Dieng ak ñom pama Dieng sen sen sen événement bi ñuy am ni samedi bi samedi bi ci ci mois de août bi xaw date bi kagn la war sargal euh, war cee ki rendre hommage sen pap xaw drapeau ba kuñ ko tuddé ñaar ñi la ba sirou jomay fay son excellence ak Ousmane Sonko premier ministre légui yow lo ci mën ñaata événement lañ fi tuddé ñi ginaaw ginaaw li nga wax ni naan ay ngénteeg ci nga Birame Souleye jom nopi gis nga bu ñoom bu ñu noppé rek jamm am bêtise du am parce que li ñi wax yépp ay bêtise la wa li ju boja nak changé na ci digënté bi changé na trop donc l'argent fait le bonheur bo bëggé dem ci lamb ji dem ci lamb ji ndax lamb ji sport la lamb ji day dugal économie ci réew mi waaw keroog taximaan yi liggéey nañ jakartamaan yi liggéey nañ jaaykat ndox yi liggéey nañ ñiy jaay kerem liggéey nañ ñiy jaay caaf liggéey nañ kon nag économique lay lay yokk ci réew mi loo gis nag dafa am ay inconvénient euh, euh, agressé yi ak yooyu mooy inconvénient làmb te yaakaar naa bu teelee tas yooyu du am waaw kon nag làmb ji di ngeen ci dem force mu leen di neex mu leen naqare ndax yéen a jiite ñuy organiser làmb ji làmb ji ci réew mi la bokk ndax bañ bañ nañ ko ba Macky dafa jël ay milliards defaral leen stade fonk seen mbir kon ngeen da ngeen di fonk loolu force tax ci ay tànk Macky ngeen nekk nekk goo leen ci seen i tànk bopp seen tànk bi ngeen ko indee dañoo xool gis ni seen tànk yi dañoo damm ñu tege leen ne jël ne leen jël leen tànki Macky saal ngeen koy doxee fu nekk ni ci tànk Macky Sall ngeen di dox ngeen bañ ko ngeen nangu ko kon nag réeroo bi am yéen la rek ba tey yow munoo nekk ñu tàllal la micro nga waxal plus de vingt personnes plus de trente personne képp kuy nekk ci gouvernement bi li nga wax ne kenn sant la ko ñu ngi tuddee ñëpp ay drapeau man tuddee naa fi xew El Malick donte nee nañ léegi dafa soppeeku dafa bew ñoo ko wax Daraame moo ko wax de nee na léegi El Malick kenn du ko woo jot ko dafa arrogant dafa lii dafa ah yéen la rek sama yónnewu ci ba tey ci seen scandale di jour de ce 24 juillet 2024 kaddu yi tunkara yëkkati. ñu déglu ji ko ñëwaat. ki ngeen amoon yaakaar ci moom yaakaar ne moom ngeen di jox réew ki ngeen yaakaaroon ne tey boo leen ko joxee réew mi seeni problème jeex ki ngeen yaakaaroon ne tey moom moo leen di génnee ci problème yi ëmbal na xale bu jigéen bu tudd kumba nag damay wax nag tur bi sax dama leen koy juñ ëmbal na xale bu jigéen bu tudd kumba bu ñu indi Amérique jëndal ko kër jëndal ko oto bu nice jox ko xaalis bu takku bu toll presque ci milliard indi ko Amérique jox ko logement jëndal ko oto ba pare ne ko mut demal defi li ngay def te bàyyi ma man ma def li may def donc vous voyez ça ne paye et ça c'est le plus grand des insulteurs ki nga xam ne moom moo mag ci defkatu ñaawteef waaye ku moom xar bi ñu ne ku moom ah, xar bi nga bàyyi buum bi donc kaddu yi la Tunkara yëkkati depuis démbule vidéo bi viral na partagé nañ ko waa boor bale nag ñu ngi koy saaga di ko traité naan lii vidéo bi montage la kon ko ñoom ñoom sax ci boppam ñoom seen jëmm bopp seen jëmm yi jëmmu montage la seen lépp montage la lu waaye def montage la tant que ça ne leur arrange pas du montage tant que ça leur du montage Tunkara nag def na ay révélation nee na ki ngeen yaakaaroon ne dina leen génnee ci guuta ki ngeen yaakaaroon dina tax ngeen tekki ki ngeen yaakaaroon ni moo gën ci réew mi dafa biiral ku tudd Kumba ba pare jël ko évacuer ko amerique wutal ko logement jox ko oto ne ko booleel patak organiser nga def ci nga ne ci li nga nekk nga bàyyi ñu ñu nekk ci li ñu nekk kan la nag xamuma ndax ma turu kenn waaye dafa ni ki ngeen yaakaaroon xel yépp nag am ci ku mu dem man nag ñeme moo wax sama xel ci kan la dem te ku mu yóbbu laay bañ mais vidéo bii ñu bëri jël nañ ko tax ci benn waay a ah, man xawma ma bu dee daa màndi moo ko wax bu dee il est moo ko wax bu dee montage la moo ko wax bu dee du montage moo ko wax man dama leen di jottalil dong waaye li ma jaaxal mooy hee waaye yéen am na ñu bëgg jigéen nag nit ki am na loo xamante ne boo ci jaaree war nga am jom ful ak fayda tuub ci yàlla changé li may xalaat yàlla na doon yàlla yàlla na xel dee waaye bu dee li may xalaat dëgg la ak ki may xalaat kooku la ak li mu wax nii bu dee dëgg la jikkoy borom pax du changé du ay ñun fu ñu jëm waaye nag ay wuyu ak bànd bu ñu àndee sàcc bu ñu rawalee bëgg a séddoo ñee séddoo ñee bañ sédd ñee ñi ñu séddul dañuy génn wax dañuy génn wax te mu ngi nii les conséquences sont là ba tey ci seen scandale du jour de ce 24 juillet 2024 ñu déglu ji kii di euh, Lat Diop ginnaaw démb buñ ko wóoloo ci brigade de recherche bu nekk foofu ca Kër masaar am benn waay bi ko tuumal xam le ni que jamono bi réew mi di métti dafa jëloon am koppar bu bëri daal di ko koy dénk euh, moom nag muy def révélation yooyu ginnaaw loolu la ñu wóolu ki nga xamante ne moom mooy Lat Diop waaye ñëpp jàppoon ni ñee joxe information ci noo xamante ne jaarul yoon dañoo jàpp Lat Diop jàpp nañ Lat Diop dafa sàcc xaalis baa ngi këram Lat Diop nag ci jëmm boppam bi mu jógee foofu ca brigade ba ca ngoon sax daal dinay def vidéo rassuré ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay soppeem waaye setal deram ndax nag weddi ma du ragal waaye setal sa bopp la donc ñu déglu ji Lat Diop yi mu yëkkati ñëwaat. asalaamaaleykum waa Sénégal ma def vidéo bu ndaw rek ngi pour samay mbokk samay am di jàmm ak ñi ma bëgg te yàlla tax. di dalal seen xel di leen wax ni waa ji ñu wax ni dañ koo garder à vue Kër Massar ci coowal supposé milliard bu ma dénkoon nit di leen xamal ni maa ngi nii sama kër ak sama biir njaboot nekk ci jàmm waaye leen xamal ni sos yu mel nii dugg leen sos nañ fi ne dama doon tukki ñu nangu sama passeport fekk boobu maa ngi ak sama njaboot di reer ñu woo ma wax ma ko sos nañ fi ni dama lekk budget ministère sport ci ñetti weer tey ñu sos ni dama am ku ma doon dénk un milliard ma leen di xamal ni sos yooyu yëpp nag am na yeneen yuy ñëw ngeen préparé wu si xam ni am na yeneen yuy ñëw waaye ak lu mën a xew na ngeen xam ni ñun ay gor lañ ay gor judd fi ñu war a judd te duñ daw lu ñëw dinañ ko dékku te di xamal ñëpp ni man fonctionnaire la administrateur civil la de classe exceptionnelle liggéey ngir réew mi xeex. ngir réew mi donc amul dara wala lenn lo xamanteni mën na ma détourner ci taxawal Sénégal ma ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf. waa ñu wax ni baadoola la waaye waa ñu wax ni fenkat la waa ñu wax ni tekkiwul dara parce que barki dem mo ñay mom mo ne kep ku yewo géej way na wax lak job jërëjëf sa yo yewo manam sa yo jugee yalla may la kattan nga yewo ak sa bi da nga war jërëjëf lak job moko waxone ne dañ koo sàggane yi Lat jël ko sang ko fóot ko solal ko parfum ko kooku kooku tey moo bëgg a tilimal Lat Diop yàlla du ko nangu yàlla du ko nangu ñun ñooy ay baadoo la ñun ñooy fàtte démb waaye yàlla lépp da cee teg xam li xew démb xam li xew tey xay xam li xew suba Lat Diop nag li mu wax leer na danañ dem ca tribunal ba mu leeral ko Lat benn rapport épinglé wu ko nee naa leen man ñii bu ñu toogee ci réew mi dama jàppoon ni ñi nga xamante ne ku ci mel ni Mamour Diallo ku ci mel ni Farba Ngom ku ci mel ni Lëg Jóob ku ci mel ni euh, maam mbay Niang ku ci mel ni kan ku ci mel ni euh, ministre de l'intérieur ba nu mu tuddatoon euh, Antoine Félix Diome pour man ni prison ba après trois jours de pouvoir ñi ñoo fay jiitu waaye nag dégguñu rapport benn rapport épingle leen Mame Mbaye Niang rapport am na mais est-ce que épingle na ko looloo jar a loolu moo jar laaj encore une fois nañ bàyyi yàqante bi nañ bayyi rafetal tey suba ñu ñaawal. ba tey ci seen scandale du jour de ce 24 juillet 2024 ñu déglu ci commissaire Keita kaddu yu mu yëkkati ñëwaat. heure de coin de quartier fi nu toll woon la nu tolluwaat ñii weddi nañu ñii mais demuñu ci ñoom. dëgg la c'est ça le problème tey nag lan moo fi des ñi mën a wax ak askan wi te war a mën a dajalewaat opposition bi mooy ñi nga xam ni.

continuer di opposé wu mais tamit comprendre ni ñeneen ñi ci lañu bok c'est pas parce que ñom tamit danoo bokku ñu ci il faut qu'on arrive à éveiller toute l'opposition face à ces gens qui ont échoué te Sénégal amul temps wu xaar 5 ans ku mënul da ngay bàyyi ñi nga xamni nak dañ leen doon jiñ demb nous ñu xaar 5 ans nak non non non xaaruñu 5 ans ñun parce que rien que tout tout nous le permet. en 2012. le gouvernement bi dafa échec. waaw te sen mandat dire 5 ans mais on est en politique d'abord qui échoue dans je dis tous les jours que ni de subversion te subversion joxu pouvoir dañu fi indi xex toj rey te pouvoir Sénégal ci démocratie ñu élection li nga xamni fait dañ ko fi tabaxone génne 54 Nous, ñun lan la ñuy def on leur oppose leur échec. ok traduire que sur le plan politique comme ñom ni ñu traduire ba am 54 pour su réew bi bloqué ñu imposer len challenge su réew mi dafa bloqué taxaw len ok dellu si ci la constante bàyyi di wax ak ñom il ne m'intéresse pas wax ak askan wi parce que suñu nee 54 nous cent ñoom une wuñ ko seen poche askan wi moo voté 54 à cause de cette démocratie qui n'a pas bougé et qui a fait cette élection bi leen jox 54 Nous ne ñun duñ fiy tardeel askan wi gis na ni ñoom ñii demuñu nañuy wax ak askan wi pour que askan wi baña a gannaaw ci lenn ñu bañ ko naxé leneen comme ils sont en train de faire pour tenter de produire autre chose pour que askan wi may leen 5 ans. mu ngi noonu euh, moom nag di commissaire Keita nee na dafay opposé wu waaye euh, opposition bi nga xamante ne moom moo fi nekk dañoo war a mun a booloo doon benn bañ a nekk ay pàcc-pàcc su ko defee ñu mën a waxal askan wi waaye ñu mën a taxawal askan wi man nag Sénégal dama gisul man dama gis ni opposant yi fi jaar yëpp seen bopp moo leen di ñor mais pas askan wi si bu ñuy opposé wu askan wi ñoru leen bu ñu demee pouvoir askan bi ñoru leen kon man ces politiciens là man sa sais pas vraiment lu ñu bëgg lan lañu bëgg commissaire je suis d'accord ak li nga wax askan bee leen tax a jug parce que commissaire Keita nekkatul xale commissaire Keita nekk na koo xamante ne dafa service servir le Sénégal servir le Sénégal ci loo xamante ne kenn du ko naataambale waaye nag ces politiciens là man j'ai pas confiance en eux les commissaires Keita ak ak ñoom Bah Diakhaté ñom Moustapha Diakhaté ñom yakarna duñu ay politiciens mais sont des gens man dina mëna ce sont des porte-parole sont des porte-parole de ces gens qui n'ont pas cette courage de faire face à ce régime qui n'ont pas le courage carlo ak kon yi fi nek di saga ak je pense que nous ce sont ce sont des des voix de ces sans voix qui sont là qui ont envie de parler de se révolter mënuñu ko def donc nous lu wax nous prison ragaluñu ku nous xas ragaluñu ku nous donc ñom bu ñu askan bi mo man ces politiciens soi-disant opposants seen boppu képp moo leen ñor ñu ñàkk nguur gi ñu ñuy amaatee nguur nguur gi moo leen ñor ñu musul nguuru nguuru moo leen ñor moo tax nag Sénégal defar ko du yomb ndax ces politiciens son des avares ay avares lañ ay avares lañ ce sont des avares ils veulent tous tout avoir mais une fois ñu am lépp dañuy sàggane ñi leen ko teg. dañuy sàggane ñi leen ko may waaye dañuy sàggane ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen ko yombalal muy ñii nga xamante ne ñun ñooy ndóol ñun ñooy eh, ñi nga xam ne yoruñu ñun ñooy payer les pots cassés ndax ces soi-disant politiciens qui étaient la naan Samba jaay naa ko def naa nii def naa lee waxatuñu ci lenn li leen ñor mooy sa luxe qu'ils vivent yaay ministre diw kii mooy ministre diw yaa ngi fayeeku lii dawal ci oto yi profito jënd ci kër yi laata nguur gi di ji c'est ça le politique au Sénégal et c'est dommage xaw ma nag ban année lay changer waaye du yomb changer ko aussi du yomb parce que les mentalités sont malades dañoo feebar wéruñu on pense mal on n'utilise pas cette intelligence qui est en nous en notre faveur mais moi loolu li li yalla xam doyna dal batay ci sen scandale du jour ñu déglu ci vidéo bi ñëwaat. dama bëggoon quand même euh, faire une remarque. Mm-hmm. que ku melni ba Bah mm-hmm. moi ça m'étonne. Mm. que que ñu bañ ko libérer ba légui di def ay plainte yu bees ay nangam ci loo xam c'est censé être pris en charge par la loi d'amnistie ñuy interpeller nguur gi mhm. soit vous éliminez la loi d'amnistie wax ñu li ci nekk ñi ci fautif yépp ñu sanctionner leen mhm. soit vous laissez les gens vaquer à leurs occupations donc Bah Diakhaté dafa war vaquer à ses occupations fekk parce que Bah Diakhaté trois mois de prison plus amende de deux cent trois mois yàgg na yàggul léegi mu génn euh, euh, ñenn ñi nee nañ moo gën ci moom sax parce que tey bu ñu ko defoon six mois sursis daal durant ces six mois dina toog këram du mën a exercer son travail ak amour bi mu am ci liggéey bi donc c'était mieux mu métti ci trois mois yi bu mon moomaat boppam et je sais que bu que erreur la def Bah Diakhaté ne va plus commettre ses erreurs envers li nga xamante ne moom sur nouveau résumé et une fois prison prison de la jàngal loo xamante ne xamoo ko woon Bah il va revenir fort Bah Diakhaté va revenir plus intelligent mais Bah Diakhaté va revenir plus dangereux ndax lu tax ma ne Bah Diakhaté bu ñëwaatee day gën a dangereux dina xam fu muy jaar ñii te ñii duñu am yoon ci kawam parce que dina xam lépp lu muy wax dina xam fu mu koy teg te loolu dina gën a métti si ñi fi nekk ndax Bah du du ragal te lii da koy gën a kii lii da koy yokk force da koy yokk force boo xamante ne bis bu gënaatee ba yàkkaarloowaat ak métier bi nga xamante ne moom la bëgg moom mooy le journalisme moom mooy baatu dëgg wax dëgg sénégalais deug bu yaa boba ñu xamné ah tëjoon ba jaxate kat c'était pas une solution par par contre dañ ko rendre force dañ ko yok force parce que tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort et Bah Diakhaté est plus fort encore donc sénégalais yi namm nañ ko ñu koy xaar parce que on a besoin de ce qu'il disait parce que limu mu wax aussi amalol na askan wi njëriñ donte du ñëpp mais amna ñu mu intéressé won donc bu dara sax ñu ñaan yalla yalla jëlé ko fofu mu nekk euh, indiwaat ko ci jamm si njabootam waye mu commencé waat exercer li nga xamantene mom moy mooy liggéeyam ba ci sen scandale du jour de ce 23 juillet 2024 Imam Dramé ginnaaw bu mu yëkëté cadeau yi. gone yaa ngi koy euh, tucc tuccee ci réseaux sociaux yi ñu déglu ji ko waat ñëwaat. bëgg a wax ak imam Dramé imam Dramé sa wax ji ñaaw na salte na yéen yéen bon ngeen imam Dramé yow wax bi noonu nga ko mën a wax bu rëy bii di ko tuumaal ay ay ay ministres yoo xamante ni ay autorité lañ ci réew mi imam Dramé xeex bi mu méttee fekk nañ ma ba kaso ni ma imam Dramé de li tax jàppuñu ko moom nee na moom xalaatuñu jàpp ko ndax dafa yow ñaari jéegam. imam drame bi xex bi mété bu go ñu japp la ndax say jek kon yow ya gëna bëgg jigen ñëpp ñun dañu baye suñu jabar baye suñu doom dem teddi kasso yow jigen motax jigen ay jigen motax projet bi nga bok nango ci teddi kasso tay ngay genn nan DG ak ministry duñu jël goor ñi duñu jël seen appel ay ay ay ay ay jigen rek lañu jël dañuy jël xalé jigen yi wax bu salté te lii bul foog ni bul foog ni waa DG ak ministre rek nga ko wax de ñun ñi ñëpp nga ko wax képp ku bokk parti Pastef wax nga ko day ñun jigéen rek la ñuy topp quoi sa wax bi ñaaw na sa wax bi salte na bàyyi leen ministre ak DG ñu liggéey seen liggéey te yàlla tax da nga gis koo xamante ni mësta am affinité ak ak benn ki ñu fal nii te nga bëgg ko woo parce que di ko wan ni ci projet bi laa bokk quoi Pastef laa bokk donc su ma lay war ma war a jël ñoo xamanteni chaque jour ñi ngi recevoir ay audience ay 23 heures la ñuy wàcc minuit ngeen bëgg leen a fatt ak téléphone kar kar kar kar bu dul jeex buñ leen jëlul après xamoo leen ci lu ñu nekk ngeen commencé même pas 3 mois 4 mois ngeen commencé bëgg a diaboliser di may ñeneen ay yeen yeen yéenay may waa APR luy wax lu wax parce que APR amuñ luy wax waa Pastef ndax dañ leen duma duma yu métti ci terrain bi ak ci urne yi amatuñ lu ñu wax ba pare war leen a jàpp yóbbu leen kaso Nyon yon ni ni. Mer eme di yon nan nende fay. Poun yon di. Yak wapas tef. Yon nan bon. Imam Drame sa wak bi bon nan. Tata saltenan. Tata tek mo kwa chika wak ay gornat. Bay linsen yon gen mel. Nominasyon yon. Bou feke li. Mwen genye sen kholi. Dinye de. Ah, a falon yon len rek. Denye wane genye jap. Gaya di kash kwa. Bay linsen ni. Yon bon yon gen neke kwa. Li nya wana saltenan. Li yon gen tef wak ni. Nya wana. Tata saltenan. DG yi ak ministre yi ay cagalañ ba duñ jël góor jigéen ñi rek la ñuy jël bàyyi leen yàq der bu ngeen toogee ci télé yi wax wax leen luy jëmal projet bi kanam bu dee ci ngeen bokk wane leen suñu liggéeyu ministre yi ak DG ak fi Sénégal jëm ngeen bàyyi yàq der yi yéen bon ngeen trop te salte nee na nan la mënee wax wax yu mel nii di ko tuumaal ay ministre tey ngeen xam ay ministre yéen tey ngeen xam ay autorité kon yéen tey ngeen xam lan mooy institution tey euh, Abdou Nguer li mu wax dafa ni ñi falu nii dañoo yaakaar ne dañoo falu vingt le vingt quatre sénégalais yi juddu le vingt cinq ñoom loolu lañ jàpp yéen première institution seen njiit dafa toog mu ne reconnaître ko comme président offense benn doyu ko mu ne jeunes yi am ngeen kattan génn leen ñu daje dem pale génnee ko daggate ko ci ki ñu élire démocratiquement deux fois mu jóge ci loolu taxé ñi nga xamante ne ce sont des magistrats de corrompus les juges pareils ministres yi nag ñoo nekkoon seeni ñeexum ñebbe ministres yi lu ne dégg nañ ko fi ay ministres sàcc ay ministre bandi ay ministre ñoo xam ne dañoo jël càgga yi ci xaalis sénégalais yóbbu leen Dubaï di noos loolu yëpp ci ñun ci ñun dafa booy suñu nopp ci yéen ñii yéen yéen a ko doon wax ah tey ministre yi dañ leen war a respecté dëgg la kay wax nga dëgg man de naa leen respecté waaye ñi bokk ci yéen mënuñoo respecté ministre yi ndax mësuñoo respecté ministre mësuñu koo def ki yéen àndal mësta respecté benn institution yow juge yi bu ñuy jàng fekkee woo nga ne yow wóoluwoo sa justice su réew t'as pas confiance à la justice nga nga nga war a dem taxawu tribunal nga xam ne benn nit du fa nekk ñaar nit du fa nekk mbooloo moo fay nekk nga ne yow wóoluwoo li ngay dem fekki foofu ah tey ngeen bëgg ñu respecter ministre yi heureusement ki bokk ci yéen a ko wax fu mu nekk na nag ku leen wax dëgg walla wax li ngeen nekkee dingeen ko saaga imaam na jël wàllam ci saaga yi ci menaces yi ministre ministre institut ban ministre yéen yéen yéen ñoom ñoom ñoom ñoom Félix Diome nii Antoine Félix Diome lan lan lañ déggul Amadou Ba barki démb sa njiit toog fee naan nee naa ko mu tegal mu teg sa baay di nga ko ne tegal mu teg nga xam ne sa baay la ci wàllum liggéey waxuma la sa moo la jiitu mais sa baay la jàngal la nga ne yow danga daan da daan yëkkati nga ne ko tegal mu teg kon yow yàlla may am nga mayum yàlla bu leen fontoo nit yi imaam Daraame li ko naqari la wax ba pare nee naa dafa soxla ci mbir yi jox leen ko ci mbir yi mu noppi El Malick moom dégg na ketame nee na kooku daa yëg succès am na keneen koo génn def audio bokk ci jomaay président nee na ñoom dañ dañ dañoo fàtte li leen fal te li leen folli dina yomb yéen la rek li kee naan yàlla na seytaane xeeb dool li yéen la rek imaam Daraame li mu wax nii moo gën a sedd yéen li ngeen daan wax institution yi fi nekk moo gën a sedd yéen li ngeen daan wax ministre yi fi nekk ngeen mosoo leen respecté kenn mosoo leen nawloo kenn ngeen bëgg keneen nawloo leen ah mënta ne nàmp namp noo jox sa doom bi ne jox sa doom meew jox doomu jàmbur bi neegar ne ko munoo jox doomu jaamur vinaigre nga bëgg sa doom naan meew mënta ne impossible bàyyi leen foowee seen xel yi président Bassirou Diomaye Faye bu déggee nit toog naan man kii du sama président yéen a ko leble bu ñu waxee président seen nguur gi dafa cuune xamoo leen munoo leen si yéen lañ ko déggee kon ñun ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy wax buñ ci jaaraatee yéen yéen a ko boyloo suñu nopp miis nañ ko imaam Daraame nag yéen la rek yàgg na leen fi tàgg daganal fi lu daganul araamal fi lu araamul kon nag yenn xam yéen yem suñu bon bonjour néewu ci waaye nag bu waxee lu muy wax am na droit wax quant à ministre moom loolu moom jeex na bu yàgg pour respecter ministre

yalla y dogal mu nekk ci sa magistère nga marche ànd ak ñuy wax Aminata Mbengue d'autres femmes politiques de notre pays ngeen dox de l'Assemblée nationale à la présidence de la République porter un projet de loi président Abdoulaye Wade and ak yéen mu président Macky Sall ñu ñu doxal ko dans tous les postes électifs et semi-électifs les femmes maintenant sont là-dedans Ils sont là yor Ils sont ñun ñu

nga mu tax ngay daw ci mbedd bi di déliter aujourd'hui elle a presque 80 ans. mais elle a l'expérience waaw hein? may ma tuuti rek. damay dé damay développer. te lu ma gëm laay wax ndax ku ma gëmoon lay doon. kàttam maa kàttam maa caution dama ko ko doon jaayal di daw ci mbedd yi di ko topp ma nekk jeune étudiante mu ñëw di def nekk ministre de la femme di fêter le euh, la journée mondiale euh, internationale de la femme dagana fu mu bokk ci baraak ya mhm. ma taxaw ci wetam naaj bi tàng lool te boobu du woon tey dama gëm man dama gëm toute femme comme Aïssata Tall Sall madame Li pare mais quand vous êtes nos leaders mais essayez d'avoir un discours cohérent ànd leen ak ku leen neex du tax nga xarab ka nga jàppoon ku am ndaa toj ndaa dootoo am ndaa ils sont en train de donner un exemple boo xamante langue politique bi ñëpp sib nañu Mimi Touré amul lu waxul Sonko nañu waxante dëgg demal dàmp ji fii yeew fii maak kocc kocc fii. mais boobu si yéen la nekkoon aussi hein mais eh, boobu si yéen la nekkoon aussi. que ça soit nous ou pas. waaw Abdoulaye je veux pas que tu me poses des questions comme quelqu'un boo xamante qui n'est pas prêt. tu es un journaliste tu n'es pas n'importe qui. Ouais, mais mais mais non ay relance le aussi ça si si la bokk. Mimi Touré ci yéen la nekkoon aussi n'est-ce pas. parce que yow xam nga yow xam nga ni Mimi Touré si ñun la nekkoon. donc li nga koy waxal ni yow tay tay jii xam nga ni si yéen la nekkoon tey bu mu nekkee si yéen da woon wax lii aussi. non xanaa déggoo wolof wala ma làkk leneen làkk naa tukuloo sax léegi xanaa ma jéem a jël làkk anglais li ma wax dama ni foo mënti nekk donc il ne s'agit même pas de tout. ànd ak man kese c'est valable pour toutes les femmes politiques yoo xamante ni ñoom ñoo ñu diriger woon il faut que nous am une ligne de conduite moi j'étais dans le parti démocratique sénégalais j'ai quitté le parti démocratique sénégalais je suis avec le président Macky Sall est-ce que mos ngeen dégg ma saaga Ablaye Wade je défie quiconque dans ce pays parce que j'ai pas à le faire pour exister. D'accord. Mais pour exister, elle a besoin de, de crier, d'insulter le président Macky Sall. Sinon, qu'est-ce qu'elle a fait dans l'histoire politique de mon pays À part d'être nommée par le président Macky Sall. Mm-hmm. Nous sommes gagnés une élection. Elle n'a jamais été maire, elle n'a jamais été conseillère départementale. Pour qu'elle existe aujourd'hui, il faut qu'elle insulte le président Macky Sall. Et ça, c'est du n'importe quoi. Elle de de témène du million. Elle s'est battue dans sa base. Elle a gagné ce, départemental. Pour avoir une existence politique, non, la j'ai été conseiller départemental à, Saint-Louis. la politique, hmm. C'est quoi que l'on puisse dire, politique, nous ne pas sinon vont être au devant de la scène. Hmm. J'interpelle les femmes, et vous êtes des intellectuels de très haut niveau. Mimi Touré lu ko waay waxal moom la Mimi Touré sikk na Mimi Touré dafa se boppam Mimi Touré man ay waxam daal man ay mbiram dama cey sawaratul dara parce que doo xam lan ngay wax douze ans du benn fan du ñaari fan ca as occupé toutes les postes léegi nga bëgg a rocceeku set bëgg tilimal ñeneen nee naa leen fu ñuy jàppee mag Macky rey gisuñu ko nañu jàpp Mimi fu ñuy wëree ki teguñu ko bët bu ñu tegee mii mi bët nañ ko téye ba mu dëgër bu mu leen rëcc six ay neuf ay six ñoom la bu leen kenn nax jéggi jóob nag ku ko xam-xam ne c'est une femme brave c'est une femme digne c'est une femme respectueuse c'est une se respecte mais c'est une femme qui sait doit dire ce qu'elle doit dire et ce qu'elle doit pas dire kenn xeebu ko musul wax ba nga ne ci piri musul wax soit dangay ànd ak moom ci lu mu wax soit nga déglu ko jàll ci leneen mais da xam ne lii waxu nit la il faut être ni da war a boo jiitoo da nga war a nekk fierté ñi nga jiite mais nga jiite ba pare foo waxee ñu ne la ci prix foo waxee ñu ne la moom bàyyi bu ñuy kon nag ngeen xam ni Mimi Touré li ñuy naan bu APR waruñoo wax elle doit se taire parce qu'elle est complice de tout ce qui s'est passé ici Comme on est le bar encore une fois comme on est le bon elle est complice elle est complice Mimi pourquoi wa a appelé PDS nous ko digérer parce que c'est elle la raison de l'échec de Karim Wad du politique moom la parce que gis nga prison am na ñu muy defar prison am na ñu muy yàq Khalifa Sall prison defaru ko ci côté politique carrière politique dafa am lu bëri lu mu tardel Khalifa pareil que Karim Wade donte Karim Wade jeune la mais prison ko am lu mu ko yàqal kan moo nekkoon ministre de la justice bu muy nekk prison bi ñu koy jàpp di ko arrêté démb ci biir toppewuñ ko dara ne satal nañ ko dugg na fi génn fi c'était cette même dame qui est Mimi Touré kan moo ko tabboon premier ministre euh, justice c'est Macky sàll kon bu toogee di wax ci Macky bu rusul ñun ñuy déglu dañuy ruus li li suñu prof benn suñu professeur monsieur Guèye Amara ma koy nuyu de passage ñu professeur français la woon euh, moom boo defee da mu naan la timawanti Mimi Touré maa woon moi en tant que femme donc Diégui djop mo yëkëti kàddu yoyilé le ci sen scandale du jour de ce 24 juillet ñu déglu ji kàddu Abdoulaye Diallo yu mu cadeau Abdoulaye Ndiaye que yu mu Ce ci 100 jours yi gis na né amna na yo xamné président Macky Sall daf leen préparé woon parce que dafa xamné Sénégal 150 000 personnes ñooy accès l'emploi par année mais 6 pour ñoo ci am formation président Macky Sall ne légui lool pour ñu régler ko. nañu yokk njàng mi mu tabax 40 000 salles de ñu ne président Macky Sall loo ciy teg mu ne département bu ci nekk nañ fa tabax benn centre formation professionnelle département yi gën a fa tabax ñaari centre formation professionnelle loolu bi ci président Macky Sall noppee mu ne nañ defaraat ay INSEP ci département yi ñu pare mu ne nañu defaraat encore lycée technique ci département yi ñu pare mu ne nañ defaraat ci 3 universités muy 8 universités ñu fi def tabax 5 universités moom mu ñëw defi nga yem mu 150 000 personnes yi accès à l'emploi par an nañ leen yóbbu centre formation pour ak INSEP yi ak lycée technique yi ak lycée de métier yi ci benn université yi bi mu ñëwee ci département de Mbacké xam ne amul université université Cheikhoul Khadim la def projet bu 8 milliards pour faculté de métier ci biir université Cheikhoul Khadim mu ne léegi nañ ko ne defar parc industriel yi mooy parc industriel yi ngay dégg jam ñaaju yaa 19 usines yaa parc mécanique bi président Macky Sall dana xale bi nañ ko former yóbbu ko ci place yu industrie yi industrie nag dafa bëri dafa am industrie halieutique industrie agricole industrie minière ci filière yëpp la ne woon nañ ci def ay parc industriel dañuy bay lu bëri lu tooy mais amuñu ay sant euh, yu koy conserver mu defar benn jëm ñaajo mais def na région yëpp na ko am na am industrie laitière industrie de transformation te képp ku ñuy yóbbooti nañ la former ba pare moo tax département yëpp am ay centre de kon boo yoree nguur gu toll ne nguuru Sénégal émergent nga xam ne fi mu jëlee Sénégal ak fi mu ko yóbbu tey nga ñëw fekk président boo xam ne bi mu ñëwee fekk na zéro ligne ferroviaire mu ñëw defaat terre bu yóbbuwaat ko jëm ñaajo ne terre bi day dem Mbour day dem Thiès defaraat ligne ferroviaire bi jëm Tambacounda defaraat ligne ferroviaire bi def Dakar Thiès defaraat ligne ferroviaire bi jëm Touba te ligne ferroviaire bi jëm Louga ñu ngi koy defar kooku def na infrastructure yu bëri yu bëri ci teew mu ñëw fekk RN2 njum la ko fekk mu def njum Ourossogui Ourossogui Bakel Bakel Tamba autour à péage mën nañ jël jaar ni dem Kédira moo tax ñoom bi ñu jëlee seen projet boobu ñu defoon njëkkoon a génnee ne dañu am ay pôle xam nga lan moo tax pôle yi ñemeetuñ cee wax mhm. dañ génnee ay ligne ferroviaire foo am ay autoroute à je dis pas Macky dafa mën mais makki dafa xam Macky dafa mbapat Macky boo toogee déglu jaar jaaram ci mbirum politik euh, je vous conseille dem leen sur YouTube ngeen tapé documentaire bi jàngale Macky Sall de ba tey Macky Sall jëmm ji mu nekk. di nga gis ni wax dëgg fa yàlla ku sañoon am doom bu mel ni moom parce que amul dara lu ñuy wax ci ñoom loo dul bëgg sa doom nekk ko bu dee maire ku sañoon sa doom nekk maire bu dee premier ministre ku sañoon sa doom nekk premier ministre bu fekkoon président assemblée nationale ku sañoon nga nekk ko ministre ci côté pétrole ku sañoon nga nekk ko ku sañoon nekk dégg daali nag daali mooy président de la république ñaari yoon ñu ñu voté la 2012 2019 ñu renouvelé la ko avec 58 virgule quelque pour cent kon Macky Sall néew ma mën na waaye xam na mënul waaye xam na. nit a ngi xam te du mën nit a ngi mën te du xam xëy na ñii mu xam nañ mën nañ xamuñu fu ñuy jaar ba exercer xamuñu xam-xam lu am solo la xam-xam ak am volonté dafa am solo ji doomu aadama Macky Sall dafa xam Macky dafa mbapat Macky Sall lii bett ko da koo da koo da koo ñàkkante waaye Macky Sall diggul Sénégalais yi lu mu munut waaye kenn mësul def yaa fi waxoon lii defoo fi lii Sénégal émergent foo na ci réew mi di nga ko gis plan Sénégal émergent kon gàcce ngaalaama à Macky Sall ñu ñaanal ñi fi nekk nag ñu def lu raw li Macky def donte li ñu commencé ah tiit jot na mais nag.

gëléem lay jënd togg ko ba mu baax reer ci ba ci ba mu suur la ci des ñu jàllax ko kii rapport épinglé wu ko kii dig woowu ko kii santé urbaine woowu ko kii ki nga xam ne daa sàcc nit sàcc nit dem jaay ko ñu téye ko mu yaakaar ne Lat Diop xaritam la ca nguuru président Macky Sall Lat Diop ne ko man duma faral ku sàcc nit ndax kenn du sàcc nit di ko jaay kooku la ñu tëj mu génn di tuumaal Lat Diop gendarmerie Kër Massar woo ko dem na ba ñëw ma nga tëdd këram loolu laa amul lu ma leen di informer kii mënuloo leen ko dara. noonu mu nekk kàddu yoo xamante ne kii di euh, Tigres moo ko yëkkati ginnaaw bi ñu joxe l' information ñiy joxe l' information juste et vrai joxe une fausse information waaw Kër la Diop fekk nañ fa xaalis bu takku waaw jàpp nañ ko pimpang nañ ko dóor nañ ko saaga nañ ko toroxal nañ ko. Lat Diop ñëw ci saalam def croiser les bras ne maa ngi nii maa ngi ci jàmm ak sama njaboot nag ku xam yoon ku respecté yoon buñ la convoqué da ngay dem Lat Diop dafa dem wuyu ji am nag ñu ci jubilé woon waaye jubilé bi yàggul ne ko am ñu ci jubilé woon waaye jubilé bi yàggul te nag Sénégal nag Sénégal nag neex na nag léegi Sénégal dem nañ ba yéenante kaso Sénégal dem nañ ba yéenante kaso waaye ñu dem ba yéenante dee moom kaso ci gën a ndaw bu ñu demee ba yéenante dee kaso moo ci gën gën a gën gën ndaw dañ defaraat xol yi ñun lu ñu boole dafa bëri ñu boole pauvreté yoruñu xiif mar iñaan xol bu ñuul gaaw a mer tension mënatu ñoo gudd fan ndax li yëpp bu booloo ci xol moom pëf lay def nga dee tëdd ba guddi yeewu ñu ne la pourtant de reer na ba suur tëdd nelaw xol ñi ne xol bu fiixee da ngay gis nit ki am yaram nit ki rafet nit ki rajeunir xol mooy lépp ci doomu aadama mi demee ba xol yi ñu sol ci lu lënd kuruk kon tiit jot na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 waaye c'est le père de la nation et cette majorité votant ñoo ko choisir ñu ànd ci ak ñoom donte neexul am na ñu mu neex am na ñu mu naqari mais c'est notre président alors mën nga weddi nit ki te doo wax li tax ñu lay xeeb yow nit a ngi wax luñ koy xeebee nga tontu ko nga wax lu lu raw moom li mu wax ñu gën laa xeeb ci mbir yi. donc euh, d'après les informations moom daal di nañ koy arrêté yaakaar naa liñ koy arrêté boo boo suma ma juumul offense lay doon parce que toog ci plateau naan suñu président waxul dëgg ci jaaree ko ci baat yu dul yoon rafetul ñoom ni ñu meloon yéen ñi di opposé wu bu leen nangu mel noonu buleen ko nangu. Nous respecté wuñu que woon Macky Sall premier ministre moom dafa ne woon Macky du président d'accord, mais vous n'êtes pas comme ça vous êtes civilisés, am xel di vous êtes des républicains et républicain mu ngi commencé nga respecter institution et Bassirou Diomaye fait, quelle que soit sa petite taille quelle que soit sa couleur de peau quel que soit nous mu c'est notre président de la république encore une fois nañ ko respecté mën na yow mën nañu waxtaan nga wax loola Mais quand les caméras sont là, les micros sont allumés, il faut savoir s'adresser à Bassirou Diomaye fay ci respect président lu mu wax ànduma ci bu waxee kees yi amul xaalis ànduma ci xel nanguwul loolu kenn du la ci topp parce que sa xel yaa ko moom boo nee sama xel nanguwul lii kenn du la ci topp kon il pouvait s'exprimer comme ça Bassirou Diomaye fay bu waxee ni fekkul xaalis ci fond bi kon fan la jëlee lii ak lii mais carrément waxul dëgg jaar ci baat yoo xamante ne tamit c'est notre président donc euh, bu ñu gisee ni c'est offensé notre président dañ lay wóolu laaj la li nga wax foo ko teg kon nag na yoon def liggéeyam bu dee dañ ko dañ ko dañ ko arrêté comme ñu jotee yenn information yi te ñu tiire ci leçon xam ni président mu rëy mox nag mu mu mu dijj mu ñuul mu xees c'est notre président donc on lui doit respect surtout on lui doit respect c'est notre président il faut ñu nangu loolu parce que gis nga loo xamante ne boo dalee ci kawam mu gaañ la bu dalee sa kaw mu gaañ la da ngay muytu da ngay muytu mën nga na ci dégg sax mais quand il s'agit du président de la république mënoo am dëgg yenn paroles yi boo ko génnee c'est du manque de respect total donc dañ koy masaw waaye nag tamit dañoo war a xam ni c'est notre président c'est notre président kenn mënul ci dara nangu bañ te nañ ko jox cër bi nañ ko jox cër bi bu waxee lu dul dëgg sax mais toogal ne ko man président lu mu wax ànduma ci président lu mu wax xel nangu ko président lu mu wax du lu mën a nekk d'accord mais dire des choses yoo xamante ne président c'est président il faut savoir respecter ce suñ président toog ci télé yi wax lu la neex jëmale ko ci président du yoon amee Suzanne Camara a commis cette erreur mais nañ ci jàngat président ba Bassirou Diomaye fay c'est notre président quel que soit nu mu munti mel c'est notre président il faut que ñu respecter ko nitay juum bu waxee dara ne leen président ka dama yaakaar bu muy wax lii est nekkul woon di nelaw mais des fois nga wax sa soxla jaarale ko ci mais l'information ça passe. Yalla scandale du jour ñu ci vidéo bi waaw ngi di gërëm di mm-hmm. ñaanal di la de recherche. Mm-hmm. ci livre solution bi gis nga dimbali ñu ci. ndax problème yi a parce que gis livre bi la. Mm-hmm. ndax article par article

Euh, ñu jëli ko indiwaat ko ci réew mi ndax réew mi soxla na ko ndax problème yi ñu nekkee yépp ñàkk livre solution moo ñu ko yóbbee ndax solution bi fa la nekkoon te somi solution bu demee ba amatul coow dafay daal di bëri donc li waral coow li bari li du daara lu dul ñàkkum livre kon mu ngi noonu scandale di jour lii lañ leen indiloon restez connecté suñu ay programme dafay daal di wéy ba suba ak jàmm ci beneen numéro scandale du jour. tandis uba pour la première fois, dibiterie professionnalisé. professionnel ndawal de am suñu marinade am secret na nga ni McDonald non ay Non la Uba dibi Uba. safiap Ouba, Michui Ouba, poulet Ouba, pigeon Ouba, pentade Ouba, bol Ouba. kaay ma wax la fa 77 629 0000, 00 fa Moi 77 633 57 57 Fou Michui Nehe Moi dibiteri Ouba Fou poulet neexee mooy dibiteri Ouba te nag kaay wax la dibiteri Ouba Commandel, nous livrer le fangané. boule ne bu tamit nga Tok qualité, kër qualité defal say commonde tabaski defal say commande boo amee xew defal say commonde booy dalal ay nit defal say commande nga xam ne débiteurs ubaa Uba da lay defaral méchoui bu toog doo defar dara débiteurs yi Uba la cay Uba moo jaaxal réew mi